am na koy tuumaal daal mais nañ dem yàlla baax na maa ko <laughs> donc comme ni nga ko waxee euh, Salma Ibrahima Niang comme ni ñu ko waxee tooroodo bi mhm. dañu daal di dikk euh, ci euh, toile yi toile yi nag nekk na ci li nga xam ne ni moom moo gën a fës ci réseaux sociaux waaye itam nekk lu ñu gën a commenté ndax ku ne xam na ni li ci gën a fës bokk na ci li nga xam ne internet yi actuellement dañu koy euh, partage waaye tam di ko commenter mu di euh, génn ki nga xam ne ni moom moo di procureur de la république ni ki euh, mhm. li nga xam ne nii joxe na ko ci information jëm ci li nga xam ne nii nag moom moo di rebelle gi nga xam ne nii dañu koy wax depuis boobu ak léegi le 8 juin bi ñu génn mercredi bale ci rassemblement bi nga xam ne waa askan wi dañu ko doon def te ñu doon wax ne dañu jàpp ab fii ci Grand Yoff moom ni ki démb nag daal dinay ñëw dëggal lu ni mel mhm. moom moomee nga xam ne moom moo di procureur de la république nee na daal lu ni mel dëgg la ndax te ñu bari bari dañ doon wax ne nañu bàyyi ba gis ki nga xam ne moom moo war a wax mu génn wax waaye yaakaar naa ne waxam jooju am na dayoo bu baax a baax ci li ñu ko doon xaar ndax euh, bu ñu fàttalikoo euh, ki nga xam ne ni moom moo yor kàddu ñi nga xam ne ñoom ñoo di gouvernement bi génnoon na mu di Omar Gueye génnoon na ba daal di ci wax waaye ñu bari bari bari ci internet yi la ñu jàppoon moom mooy kookee di wax war woon wax wàllum politique képp képp moo taxoon mu génn wax waaye tam euh, ñu bari ci internet yi jàpp ne ñoom dañoo fay seen nga xam ne moom moo di seen communication parce que nee nañu bu Omar Gueye di génn mënoon waroon na jël euh, place place euh, place Omar Gueye ki nga xam ne moom moo di procureur de la République moom moo ko waroon a jël moom moom moo di wax euh, xam ne ni ñoom ñoo di armée ne dañoo li nga xam ne moom moo di justice ci Sénégal mais aussi ñi nga xam ne ñoom ñoo di internautes yi dañuy ñëw fu sori sori ci li nga xam ne nii noonee la waxee waaye itam ni mu interprété waaye itam ni mu expliqué li nga xam ne moom moo di fee yi amoon mu di ki nga xam ne moom moo di Ousmane Diatta mi nga xam ne tudd nañ ko ne moom la ñu jàpp en tant que rebelle euh, ba tax na indi na ay leeral yu bari bari waaye ñi nga xam ne ñoom ñoo di internet yi ñu bari ci moom dañoo mel ni man ndax li ñu wax moom mooy que euh, amul benn yoon wax jooju lu ñu ko mën a jox ci dëggal ko ndax nee na gëmuñu benn yoon li nga xamee ni noonee la euh, ki nga xam ne moom moo di procureur wax ci mbir mi nee nañ daal boo dee xool wax ji mm. am na ci lu bari bari loo xam ne dafa am woroo ci kaddu yi nga xam ne ni doon na ko waaye tam bu ñu natablee li nga xam ne moom moo di information yi ñu am ba pare mm-hmm. passé ñu ngi ko doon wax ci kaw ana nan la ñuy xàmmeewee ki nga xam ne ni moom mooy euh, euh, moom mooy euh, rebelle la ki nga xam ne moom mooy terroriste la ak mm-hmm. keneen ak keneen ndax te ñu bari ci internet yi la ñu wax moom mooy terroriste sax bu ñu ko dee wax mën nga xalaat ne kii kat dafa dafa dafa nekk ci mbir mi ba tax nañu kii ko waaye ki nga xam ne moom mooy rebelle mm-hmm. amaana dañ ko cee mësoon a tudd tey it am na ci euh, lu ñu lu ñuy expliquer fan nii ci plateau yi mooy que am na ci ñoo xam ne nii dañu leen a euh, teggiloon mbir moomu ci jamonoy Abdoulaye Wade mm-hmm. parce que dañoo génnoon ci wàllum rébellion te fekk na nekkoon nañu ca ca Casamance mais génnoon nañu ci ba président euh, Abdoulaye Wade jëloon leen jox leen sax ay cité ak yeneen ak yeneen leen fa ay kër waaye tam jox leen bokk na ci loo xam ne nii nee nañu bu fekkente ne ki ñuy wax ne Ousmane euh, Kabili euh, Diatta dafa nekk ab rebelle mhm. bokk na ci loo xam ne nii ñoom internautes yi nee nañu gëmuñu procureur na mu ko waxee mhm. parce que bu fekkente ne moom mi nga xam ne dañ ko koo jiiñ dafa ñëwoon fii euh, ci Ndakaaru bëgg mhm. jënd ay xar ana liberté bi mu am moom ci boppam te ñu xam rebelle yi ak ya làggal yàgg làqatu gi nga xam ne yàgg nañ koo làqatu waaye tam bu ñuy def seeni mani nañ nan naka lañu koy defee dem na ci tam ñoo xam ne nii ci ay internautes nee nañu nañu def attention ci mbir bi bu baax a baax parce que bu ñu sukkandikoo ci li nga xam ne fekk nañu ko ci moom li procureur wax ci xaalis ak yeneen ci ay dollars ak beneen xaalis boo xam ne du xaalisu Sénégal mhm. day mel ni ba tey jii moom mu ngi ci mbir mi ak dayo bi nga xam ne ni moom amoon na ko ci wàllum rébellion mhm. maanaam na mu mën a euh, euh, manier arme arme mhm. maanaam na mu mën a utiliser arme waaye tam ay stratégie yu mën a teg ngir amal yeneen ak yeneen ci ay jàppante yoo xam ne rebelle rebelle yi dañu ko doon def donc nañu def attention mais aussi am na ci internet euh, bi mhm. euh, internautes yi dañu ne ñoom mënuñu gëm que kii lee di procureur li mu wax dëgg la parce que nee gis nañ fi procureur génn ba tàyyi ndax bu ñu fàttaliku ne procureur génnoon na fii daal di ne ci jamono yi ki nga xam ne moom moo di Karim Wade mhm. que Karim mii dañu koo jàpp moom ak fukki moroomam ak ñeent xaw ma ak ñaar mhm. yoo xam ne nii dañu leen di jàppee ne dañoo luubal alalu askan wi te nee nañu ba ñu ba mu waxee loolu information bi mu génne woon daanaka dafa weddiwaat boppam ndax benn yoon boobu la ñu gis benn Karim Wade lañ toppoon ci ñi nga xam ne limoon na leen beneen bi ñu ne gis nañu fi ñu wax tuumaal imam imam boo xam ne ni moo di imam ndaw mhm. tuumalaa tuumaloon ko fi ay euh, waxi li nga xam ne moom moo di euh, terrorisme ak yeneen ak yeneen gàll ko ci ndoddam te procureur dafa génnoon daat ci def li nga xam ne ni moom moo di euh, conférence de presse maanaam point de presse bu yaatu ba ñëpp siiwal ko anamu mhm. tay jii fu mu mujjee mhm. donc nee nañ daal bu ñu seetee ci ginnaaw histoire ak tay jii li procureur wax day mel ni rek lu ñu yàgg a togg la lu ñu yàgg a nekkal la aussi politique képp moom la procureur wax démb ñu bari ci internet bi nee teguwul benn yoon te nekkul loo xam ne hmm. nii lu fondé la gëmuñu bi nga xam ne ñu ngi koy euh, na nekk nañ ci en tout cas. avis yi euh, bokkul Pape. ban hmm. nga ci am. waaw man dossier bi dafa am ay recherche yoo xam ne dama ko nekk di def te pareegu ma. d'accord hmm. ma ci paree dinaa ñëwaat toog fii wax leen. incha allah très bien ñu ngi koy xaar de ayca. incha allah ñu ngi lay ñu ngi koy xaar bu baax a baax donc dañuy daal di ñëw rek jàll ci leneen loo xam ne nii dafay ñeel li nga xam ne nii rek moom mooy situation réew mi ba tey ak ni nga xamee ni noonee la ko ñii di internet yi daal di jëlee ndax ku ne xam ne ni euh, ginnaaw démb ñii di waa euh, yeewi askan wi dañoo génn def ab conférence de presse ni ki démb ci 19h ngir xam le ni le 17 bi incha allah bi ni ki suba dina ñu génn def seen rassemblement manifestation bi nga xam ne nii ñoom fas yéene nañ ko amal nee nañu dara dara du tax ñu deltu ci ginnaaw te it parewuñu sax pour deltu ginnaaw ci li nga xam ne ni moom moo di euh, seen manifestation bi ñu bëgg a def waaye itam manifestation bi li ci am moom mooy que euh, gouverneur bu Ndakaaru dafa daal di génn daal di xam ne rek ne boobule manifestation amul benn yoon autorisation autorisé wuñu ko mm-hmm. mais aussi ñi nga xam ne ñoom ñoo di internautes yi dañu ñëw fu gën a yaatu mooy que ni euh, ana lan moo tax ginnaaw le 8 mars bi euh, bi ñu leen di autorisé pour mm-hmm. ñu mën a def seen euh, manifestation boobee dañu ko indi une une heure de temps avant manifestation bi di am mm-hmm. donc mu am waroo torop ak li nga xam ne ni moom mooy ba ñu ko bëggee bañ nee nañ ba ñu ko bëggee bañ dañoo génn deux jours la ñu génne li nga xam ne moom moo di communiqué bu gouverneur daal di leen koy daal di leen koy jagleel ñoom internautes nag di laajte ndax fekkee dañuy tere dañuy teel a tere bu fekkee it du ñu tere dañuy bàyyi ba dernier moment ñu soog ne terewuñu et tout mm-hmm. donc loolee aussi ñenn ci internet yi la ñu jàpp moom mooy que euh, am na ci loo xam ne nii mënuñu jàpp ne lu jaar yoon la te it euh, ni ko Pape waxee woon laa fa mm-hmm. euh, waxoon na ni lii di wàllu manifestation droit la boo xam ne nii képp koo xam ne nii yaa ngi askanoo ci askan wi dañ mm-hmm. laa ko war a may ndax droit boo boo am ba pare mais aussi bu ñu dee def manifestation wala rassemblement lu mu ci mënti doon daanaka doo dem di tàggoo maanaam maanaam da ngay dem di yëgle yëgle boobee aussi ñoom ñi nga xam ne nii ñoom ñoo euh, sekk yeewi askan wi te bëgg am rassemblement bi ñoom euh, sukkandiku nañ ci lool ndax bu ñu déggee Khalifa Sall dégg Ousmane Sonko ñoom ñëpp ci loolu daal mel na ni dañ cee tënku ci kaw loi bi ana lan la leen may ndaxte daf leen a jox opportunité mhm. pour ñoom ñu daal di yëgle donc yëgle boobu rek lañu la ñu war a def te def nañu ko mhm. ci loolu tam nee nañ dañuy am beneen kayit boo xam ne dañ koy jégbal euh, cour suprême ndax am na cour suprême leneen loo xam ne war na ko ci mën a def ndax gouverneur wax wala du ko teggi mhm. donc am na beneen recours boo xam dugal nañ ko tey ñoom xam ne nañ diñu ko digal ni ki euh, tey jii pour xam ana suite bi mais suite boobu a mhm. bu fekkee ñoom dañoo nar dem ba vendredi ñu daal di koy génne mais vendredi ci ban heure la ko war génne mu nekk mhm. nag ay jiixi jaaxa yoo xam ne jur na euh, lëntalënt ci xelu askan bi mais bari ci askan bi ñoo xam ne nii euh, Salma bu dul man mi ne liggéey ci internet bi ak yeneen ak yeneen keneen ñi ngi taxaw tem def seen ay logo mhm. def seen changer ay seen ay profil waaye tam changer seen ay couverture mhm. euh, ci internet bi moo xam Facebook euh, Snapchat moo mhm. xam Instagram lépp lu mënti doon ne ñoom la leen ñor moom mooy yitteel leen moom mooy euh, rassemblement bi nga xam ne le 17 day am tey dañoo takku ba dëgër ngir dem ci boobu le rassemblement ñu dellusiwaat arrière tuuti moom mooy que li ñu doon wax jeudi passé dañuy fàttali bu baax a baax que ñi nga xam ne nii ñoom ñooy jeunes yi gisee woon ni ki huit le huit bii passé ci place de la nation formation nekk na jeunes yu takku nekk na jeunes yoo xam ne nii li leen indi woon man ci sama gis-gis mhm. ak sama dégg li ma dégg ci ñoom la leen indi woon mooy courage am nañu ko déjà bi ñuy ñëw mhm. waaye itam ànd nañu fukk waaye itam ànd nañu ak rage boo xam ne nii moom mooy eh, eh, tax ñoom ñoo ñoom ñëpp ñu ànd woon ñëw bu fekkente ne mbooloo mu takk moom moom moo ñëwoon ak gëm-gëm bi ñu àndaloon bi ñuy ñëw foofu mhm. bu fekkee ñoom ñoo génnaat même chose waxuma na ñu ëpp ko de mais euh, lu toll noonu ci mbooloo ñoom ñoo génnaat le 17 bii amaana ñu tere leen ne leen doo leen manifesté woo yaakaar naa ni mënul jur jàmm fii ci askan bi mm. mënul jur jàmm ci Sénégal mm. donc lu jara jara taxaw seetluwaat la mm-hmm. te it man damay poser la à chaque fois une question moom mooy ana euh, ban armée wala kan moo mën a téye ci ñi nga xam ne ñoom la yàlla def ñu war a euh, téye suñu kaaraange euh, jeunes yi nga xam ne génnoon nañ ni ki keroog ku fa mhm. woon boo dee waxal rek suñu borom jeunes yooyu bu ñu tasee ci biir ndakaaru gii amaana li ñu bëgg ci jàmm ak salaam amaana duñu ko am mhm. donc loolu lépp su amee nag dañuy retourné wu rek daal di waxaat comme Sénégal moom benn bopp la mhm. kenn mënu ko xar ñaar dëkk boo xam ne nii la amul waasu amul leneen ñun ñëpp ko bokk dañuy rek daal di war a nag toogaat waxtaan maanaam pencoo Sénégal la ñuy jëm yàlla sax bu ñu fa suñu borom àggale te it bokk na ci wàllum politique mm-hmm. waaye itam situation bi nga xam ne Sénégal dund na ko mm-hmm. ndax bu ñu deex mois de mars ak 14 euh, personnes yoo xam ne faatu woon nañu ñuy wax ay ay euh, force occulte ñuy wax ne euh, jamono jooju dund gi dafa metti woon waaye itam mm-hmm. ñu nekkoon ci jamonoy couvre ak yeneen moo tax ñu ci bari bari bari dañoo génnoon ngir ñaxtu ba ay doomu aadama ñàkk seen bakkan mais bu ñu fàtte aussi ne wàllum justice da cee amoon yoon ndax dañoo jàppoo ne jamono jooju suñu démocratie ñu ngi koy salfaañe jamono jii nii la gën a méttee ndaxte mm-hmm. bu ñu dee xool li nga xam ne ni moom moo di euh, euh, denrée alimentaire yi métti na ci kër mm-hmm. ku añul doo reer bokk na ci loo xam ne sénégalais yi nañ ko mais mm-hmm. aussi dañuy wax rek sunu wàllum justice ak yeneen bokk na ci lu sénégalais di ŋàññ donc la ñu doon la ñu jàppoon en euh, mars 2021 yaakaar naa ne fi ne nii lu ko raw jàpp nañu ba tax na yee fit na moom jamono ji taluñu ko ndax su yeewoo fañ ko doo fa mu tëddi nelaw bu ñu ko fa yeewee amaana ku ci nekk sa bopp dina tëju mm. ndax fii Sénégal comme ni ma ko waxee rek ñëpp benn lañu benn bopp mm-hmm. la kenn mënu ko xar ñaar nañu toog pencoo Sénégal gi et puis on dirait que le gouvernement n'apprend pas de ses erreurs erreurs fois gis nañ ni euh, marche bi fi amoon rassemblement bi fi amoon ça s'est bien passé ñoom génn nañ encadré ndaw ñi mm-hmm. ñu wax li leen métier et puis da nga souligner benn affaire mooy dundu gu cher gi majeure partie ñi demoon ci rassemblement bi loolu moo leen fa yóbbu woon donc ça leur permettra xëy na ñu wax li nga xamante ne moo leen metti ci dëkk bi mm-hmm. ñu encadré leen jàmm ne ñooy su nekk soo paree ñibbi sa kër mm-hmm. moo gën fitna bi nga xamante ne xëy na bu fi amee xamoo nax sa mbokk dina ci mucc man sama mbokk dina ci mucc en tout mm-hmm. cas buñ nee rassemblement rek surtout ñëpp dem mm-hmm. te loolu mën nañ ñu ko nag éviter nax du loolu la ñu soxla jamono ji si réew mi mm-hmm. bëgg naa ci xalaat xam euh, mais bëgg naa benn point parce que ñu ngi wax euh, euh, article L61 du code électoral ñu ngi naan dañ ko violer loolu moo tax xëy na ñu interdire li nga xamante ni moo ci ah, marché bi lan lan nga siy wax très bien <coughs> waaw xam nga déjà dafa am boo xoolee gouverneur dogal bi mu génnee dafa sukkandiku ci arrêté boo xam ne CNRA génnee na ko. te CNRA presse la la la régie compétence am ci wàllum presse la mais pas parti politique. Mm-hmm. Oh, oh, oh, dëgg yàlla c'est excellent. Mm-hmm. CNRA conseil mm-hmm. national de régulation de l'audiovisuel la ñu wax. l'audiovisuel mooy télé yeeg rajo yi. ak lépp loo xam ne yëngatu na ci média mais parti politique yi bokkul ci champ de compétence su donc foofu c'est une interprétation erronée bu ah. xam ne gouverneur de Dakar désorienté sax voilà ci ci justement désorienté ci communiqué Sénégal parce que Sénégal moom média lay waxal ah. donc luy jàll ci média moo ko intéressé mhm. la politicien di def ak lu politicien wax yoonu Sénégal new ci mhm. mais li ñu doon xaar mooy gouverneur ba mu génnee arrêté bi. Mhm. moom ci boppam dafa war a viser dafa waroon viser ay articles précis. Mhm. ay lois ah, wala ay règlements précis. Mhm. yu mën a sukkandiku pour interdire li nga xam ne moom mooy propagande. lan mooy propagande. loolu mooy li nga xamante ni moom la laaj parce que xam nañ ni campagne électorale bi. le le le dix lay commencé. diggante bi état major yi koo ko koo ko ci tere publiquement mu def ko secrètement. ba au même moment. Euh, i moment. waa nguur gi ñoom ñi ngi def seen tournée politique. tournée ko mm. tuddee ko ay trophée mm. surtout diaspora bi fi ñu toll nii moom jamono yi passé yëpp moom moom fan yi passé yëpp ña ca diaspora bi. ak seen coupe boobu de la République mi woon diaspora di ay militants en France. wallaay mais mais la jokkoo ak Macky la qui est en train de foog na pour lan. Mm-hmm. Ah, mais mais mais li li tënk euh, gouverneur CNRA ak ñeneen ak ñeneen ci élection législative xanaa tënku leen ci local yi locale bi Ousmane Sonko di lancé bureau bi. Mhm. daanaka bi ñuy jëm ci campagne bi nga xam ne ni moom mooy pré campagne bu bu bu euh, élection locale yi la woon mais aussi ci la président Macky Sall duggoon ci région yi doon def jokkoo ak ak Macky Sall beeg yeneen ak yeneen. Mhm. bu ñu fàttalikoo dëgg-dëgg est-ce que euh, dafa am article boo xam ne dafa wax dara ci code euh, code électoral bu bu bu élection locale. Mhm. bu bu weesu. bu niroowul ak li mu wax ci code électoral bu bu élection législative. alternative waaye mu amul dara lu koy tere gars yi interprétation bu leen arrangé rek la def loolu rek moo fi am mm-hmm. maa ngi fàttaliku ci nguuru Ablaye Wade mm-hmm. bi ñu préparé présidentielle mm-hmm. jamono yooyu opposi opposition bi fi nekkoon am na lu ñu tuddoor tuddoon euh, tuddee woon les 72 heures de place de l'indépendance mm. te boobu chaque jour dañ doon dem place de l'indépendance te duggaguñu woon ci période campagne électorale. loolu ñëpp a koy fàttaliku en 2012. Mhm. journaliste yëpp nekkoon rapporteur jamono yooyu man chaque jour maa ngi woon sur le terrain. chaque jour opposition dañ doon dem place de l'indépendance. Mhm. Mhm. te duggaguñu woon ci période campagne électorale. Abdoulaye Wade musu ko tere musu ko tere. naan ay propagande la wala li ku bëggaan ñëw dala daan bàyyi. te gars yi xool jóge waaw bi fi amoon c'est que problème bi yëpp xam nga mm-hmm. woon loi xam nga léegi maa ngi la koy wax ci offense au chef de l'État. Mm-hmm. maa ngi fi tudd cour européenne des droits de l'homme dafa ni mm-hmm. France. cour européenne au chef de l'État ci sa loi. France exécuté ko te coow amul. tey bu ko cour de justice CEDEAO waxoon. fii baa ngi nit daal respecté wuñu ci dañu bu fekkente ne kenn ku ci nekk da koy interpréter selon ni mu la arrangé. ça pose problème. ça pose problème vraiment. te nekk na loo xam ne ni aussi lu ñu jara taxaw seetlu la. Mm-hmm. ndax yaakaar naa ne comme ni ñu ko waxee à chaque fois rek démocratie boppam moo bëgg a nërmee lu jaaree ko nag ci li nga xam ne moom moo di justice. Mm-hmm. te justice su réew bu demee bay eh, jiixi jaaxa wala sax askanam di ci jiixi jaaxa amaana mën na jur leneen ak leneen loo xam ne ni justice boobu après day teg waat ci kawam. te mm-hmm. yaakaar naa fitna ku koy yee yaakaar naa bu yeewoo rek ci sa kaw lay njëkk a dal ba tax na dañuy dem ci leneen mu di nag conférence de presse bu waa Benno Bokk Yaakaar gi nga xam ne moo jiitu fuuf bu waa Yewwi Askan Wi ndax gis nañu ni ki keroog ñenn ci nee nañu seen i ay jeunes dañoo génn ngir dànkaafu ñi ñu doon dànkaafu du ñenn ñu dul waaye Yewwi Askan Wi gi nga xam ne nii nee nañu daal dañ leen di dànkaafu ci kaw ku fi génn ñoom ci seen bopp dinañ jàmmaarloo ak ak yow waxoon nañ ko nag le 8 mars ne dañuy indi contre manifestation mu nekk nag baat yoo xam ne nii jamono ji ñi ko wax dañu am nag euh, baat boo xam ne dañu am nopp yoo xam ne ñu bari dañ leen ko doon dégloo mm. fii ci euh, Sénégal dañ ciy jël kenn koo xam ne mu di Yankoba Diatara mi nga xam ne nii niki keroog yëkkati na dënnam mm. waaye itam yëkkati na wax na ba ñu yaakaar ne lii mu wax da koo ñor xomm mm. waaye itam la mu wax ñu bari ci internet yi la mu la ñu jàpp moom mooy du waxi responsable te kenn xaaru ko ci woon moom ci euh, moom moom di Yankoba Diatara ci koo xam ne nii nee nañu daanaka sax waratoo wax ndaxte li nga xam ne nii moom nga amoon ci yelleef ci sénégalais yi jox la bopp ak di la déglu yëpp danga koo ñàkk ñàkk mhm. ndax transhumant nga te it amatoo benn baat boo xam ne war nga ko wax lu dul ñu jox la poste nga dem toog te xam ne politiquement yow ci sa bopp man sa mentor ki ko tax a dugg ci politique yar ko ci euh, euh, ko ko rey te ki leen rey du kenn ku dul ñoom ki ñu euh, taxaw nii di mhm. tax muy fëgg seen naa ne ñoom ci mbokku internet yi nee nañu bu fekkente ne du wàllum poste ak bëgg seen ki leen jiite tey di président Macky Sall gën a toog ngir ñu seen ceeb gën a niin wala ñu gën a am ay poste wala gën a am baat ci réew mi du lenn lu dul li leen tënk waaye waxi askan wi ñoru leen benn yoon donc ñenn ci internet yi nee na ñu ngi leen di xaar ba boobu ñu génn mais dafa am leneen loo xam ne nii da cee wàllu si ndax ku ne xam ne ni Thierno Bocoum aussi ci njabootu ki nga moom moo di Idrissa Seck la woon moom ak Yankoba Diatara ak Déthié Fall mi tey jii bokkoon nañu ci ñi nga xam ne nii ñoom ñoo bokkoon ci réew mi bi nga xam ne euh, kii di Idrissa Seck moom moo ko moom moo ko jiite woon ba tax na euh, kii di Thierno Bocoum ginnaaw bi Yankoba Diatara waxee ni ab poste xam ne ko doon joxe ci ay jamono mu moom moo ko joxoon ndax de préférence ñoom ñoo waxoon nañ ko ko jox par la mm-hmm. suite la ki nga xam ne ni moom mooy Idrissa Seck daal di ne nañu ko jox kii di Déthié Fall nee moo tax Déthié Fall daal di toog tey ji euh, ci euh, place bi mu toog ci assemblée nationale di ab député mais nag li ci gën a graaw moom mooy kii di Thierno Bocoum dafa daal di wàllu si ci li nga xam ne ni moom moo di ci wax ji ndax da koo seedeel ne fekke na lu ni mel te mën na koo seede waaye Thierno Bocoum dafa génn daal di koy wax ne ko waxoo benn yoon dëgg maanaam li nga wax amul benn yoon euh, fu ñu ko fu ñu ko mës a fekkee wala fu ñu ko mës a dundee donc da ko weddi ba mu set mu nekk nag ab texte bu gàtt boo xam ne nii yaakaar naa ne ku ko liir dina xam ne aussi Thierno Bocoum xëy na li mu wax am na foo xam ne nii euh, foofee la ko teg mu mel ni baat ak tontu la mhm. mais tontu bi dafa gën a sax am dayo baat bi nga xam ne nii Yankhoba Diattara euh, jëloon na ko ci ay kàddu mu nekk nag loo xam ne aussi dañ koy wax rek ñor bokk internautes yi ndax dañoo jàpp ne Yankoba Diattara la mu fa wax ba ni mu paree mhm. dara dara nekku ci dëgg moo tax kii di ñoñam tey di frère de parti bu bu boo xam ne ni c'est à l'ancienne nee na kooku dafa génn daal di koy weddi te lim ko weddi bokk na ci ñoom internautes yi la ñu ko weddi bien avant moom Thierno Bocoum euh, di ko di ko weddi noonu daal la ñu ko jëlee euh, ci biir internet bi ak yeneen tontu bi politiciens yi mhm. nekkee ci réew bi moom jamono ji man yéem na ma loolu sax billaay defante gu métti gi lan euh, Yankoba Diattara on a ñun les sénégalais na connaissent pas Yankhoba Diattara mhm. c'est-à-dire bu may wax les sénégalais ne le ne le connaissent pas mooy cest dire c'est c'est boo xamee ne que ñun amuñu habitude di koy dégg muy génne di wax ci problème yu yi di dund. Mhm. car à chaque fois boo ko gisee mu wax rek c'est pour défendre intérêt boo xamee ne que maanaam c'est menacé. par rapport mhm. à parti politique am mhm. ou bien moom par rapport ak ak ak li nga xam ce sont ses intérêts personnels mhm, mhm. amuñu habitude yu gis ko quoi on ne le connaît pas en fait en réalité quand il s'agit de de de on comprend qu'il a été député et un brillant député quoi qu'il se passe une personne boo xamee ne que man genre genre su ma daan gis ay live Facebook am sax damay damay taxaw seetaan parce que donc c'est une personne boo xamee ne ça il a une tête bien faite te déggoo ko mu saaga déggoo ko kooku waxam lañ gën a mën a jox crédibilité que koo xamee ne que déjà saa bu génnee wax dangay xam wax ji orientation bi mu jël saa ça n'a aucune analyse boo xamee ne que dafay dugg ci cadre social mm-hmm. wala technique wala quelque chose comme ça mm-hmm. cest à les profils ne sont pas les mêmes. les surtout ça dañuy daal di jàll ci beneen sujet daanaka sax bii la waroon a njëkkee mais léegi lañ ko gis ci internet bi sànq nag ñu ngi ko doon ñu ngi ko doon saytoog yeneen mu di euh, premier euh, premier ministre bu euh, Mali bi nga xam ne nii dañu ne dafa daal di génn muy yoo ci turu Choguel Maïga moom nag dafa daal di génn taakale ki nga xam ne ni moom moo di président Macky Sall. Oh. nee na daal président Macky Sall ci jamono bi nga xam ne dem na dem na ca Poutine. Mm. ngir daal di xëy mu ko tuddee ci biir euh, li nga xam ne ni moom moo di wax ji moom mooy yelwaan mm-hmm. yelwaan ngir embargo bi nga xam ne ñu ngi ko def mm-hmm. digganteeg blé beeg yeneen ak yeneen goo xam ne nii àdduna wërngal këpp ànd nañu di ko jooy ngir tëj gi nga xam ne nii euh, réewum Russie euh, mu di réewum Poutine ci la ñu tëj boobule blé ak leneen loo xam ne dafa doon jógee ngir àdduna bi mën cee teg loxo mu mel ni moom jiital moom mi nga xam ne ni moom moo di premier ministre bu Mali dafa ñëw daal di taakale bu baax a baax suñu jiital réew mm. président Macky Sall nee na ko yelwaan gi nga dem di yelwaan ci Poutine mm-hmm. dem fa di fa sàkku ngir ñu bàyyi blé ak leneen leneen loo xam ne nii dafa ba war a war a war a laal àdduna wërngal këpp te nga dem waxee ci baatu Afrique ndax bu ñu mm. fàtte ni moom moo jiite Union africaine nee na ko daal lu ni def dafa waroo dëgg-dëgg ak say jëf ndax nee na ko li nga xam ne nii moom la def dafa fekk ne dafa doon xool lu arrangé euh, réewum réew yi nga xam ne ñoo nekk ci ci ci Occident bi maanaam euh, ñi nga xam ne nii ñoom ñooy réewu tubaab yi bu ci mm. mel ni euh, France ak yeneen ak yeneen mën a tudd ci yoo xam ne mbirum président Macky Sall nee nañ ko mhm. daal ba ngay dem di wax waxoo ci turu Afrique te it Afrique taxulaa jóg euh, pays occidentaux yi ñoom ñoo la yónni ngir nga dem daal di yelwaan ba ngay mhm. dem nag di wax euh, ci turu euh, Union africaine waroon ngaa waxee ci Afrique te it kenn du dóor dóor dóor doom làq doom nee na ko ba nga jëlee sa embargo teg ko ci réewum Mali ba tax na Sénégal ak Mali lu ci bari fi ne mënuñu koo jëflante lu ci bari aussi ci wàllum lekk ak naan goo xam ne ni doon na jàppale ñaari pays yi daanaka lu ci ba tax amee ñu daat ko ciy mere mhm. boo demee di wàlliyaan ci dëkk boo xam ne nii tëggoo ko day mel ni loolu mhm. euh, wàllum euh, waaneek leneen moo la ci yóbbu mais nekk loo xam ne nii dañ cee mën a sukkandiku euh, mhm. pour mën a xam ndax dangaa doxi woon jàmm wala doxoo jàmm moom daal c'est à vérifier encore une moom mi nga xam ne moom moo di premier ministre bu Mali bi Choguel Maïga noonee la waxee ak président Macky wax bokk na ci lu bari bari loo xam ne nii internet yi ak sénégalais yi ñu ngi ko doon laam-laamee ci kaw bala ngay laax jaay nga laax lekk ci sa biir kër te yaakaar naa Mali moo ñu gën a jege que réewum France ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne mhm. ñu ngi leen di xaar te diggante Mali ak Sénégal embargo bi fi euh, bi bi biñ fi teg nekk na loo xam ne nii métti na métti na ci Maliens yi waaye tam métti na ci Sénégalais yi mhm. a teggi la dem na mm, dañuy rus ci seen diggante seen mhm. morom Maliens yi te kenn teguñu ko ku du suñu njiitu réew balaa ngaa laax lekk je pense que bien avant premier ministre bi di ko bind sax sénégalais yi bokk na ci li ñu doon ñaawlu bu baax a baax parce nga war a am loo mën a lijjanti foofu defoo ko dem ba feneen di fa am loo xamante ne xëy na yaa ngi ko fay euh, revendiquer balaa ngay wax dara daa njëkkee ko ba pare bu ko defee soo waxee ñu mën laa déglu surtout ça dañuy daal di jeexalee leneen wala sax ñu yokk ci ndax ba tey ji information yi jeexul dafa am ab vidéo boo xam ne aussi mi ngi circuler dañuy wax naan euh, boo gisee li nga xam ne ni moom mooy euh, benn information mooy vidéo muy leneen da nga ko war a xool saytu ko ba xam mm-hmm. mais vidéo bii nag lu ñu lu ñu xool lu ñu saytu la mu di kii di rakku njiital réew mi xam naa dinañ ne coro da leen a singali waaye nag dafa nekk ne information <laughs> yooyu. li xew ci toile bi la rek moom laay moom laay indi daanaka nekk na benn vidéo boo xam ne mu ngi circulé eh, kii di Aliou Sall di rakk ci président Macky Sall nekk ci ab eh, yaakaar naa ci eh, li nga xam ne ni moom moo di aéroport la nekkoon di voyage ndax ñu ngi ko gis ak ay bagage am ak lépp mais mm. dafa mel ni am na ñenn ci ay sénégalais ndax olof yu ñi nañu la ñuy làkk yu nekkoon ci pegg gi goo xam ne ni dañu taal seenu téléphone di ko filmer moom mi nga xam ne moom moo di Aliou Sall di ko yooxoo nag ndax yooxoo yi bokk na ci naan koon xoolal Aliou Aliou sunu 400000 Aliou pétrole ak yeneen mais mm-hmm. moom la mu def aussi bokk na ci jël téléphone am moom tamit mel ni kuy filmer jàkkaarloo ak jàkkaarloo ko ak ñoom euh, ki ci biir euh, téléphone bi kii ci biir vidéo bi di wax mi ngi naan dégg ko xool ko mu may filmer filmer ba suba mu mel ni xëy na sax fii loolu du Sénégal ndax mm-hmm. yaakaar naa ne bu doon Sénégal la ci aéroport bii dina nekk loo xam ne nit du ko sañ ci mm-hmm. sama yaakaar ma yaakaar ne nag feneen ak feneen la foo xam ne ni ci àdduna wërgal këpp la fu sénégalais nekk rek gis ne euh, kii rakku njiital réew mi la ak la mu koy wax ci pétrole ak gaz bi nga xam ne ni yaakaar nekk loo xam ne da ko inventé ñu bari bari ñu ngi koy laam-laamee mm-hmm. donte ne nekkatul euh, euh, nekkatul euh, ci li nga xam ne ni moom moo di ci information bi njëkk waaye tam mm-hmm. nekk na loo xam ne ba tey ñor na sénégalais bu baax a baax donc noonee daal ñu gisee vidéo bi ñu mm-hmm. bari bari ci internet yi dañ ciy attardé mooy dañu ko partagé aussi ko dañu ko dañu ko dañu ko commenté bu baax a baax di ko wane rek moom Aliou Sall ba tey jii bu yaakaar ne dañu koo fàtte ci sunu pétrole bi gaz beeg yeneen ak yeneen ci ay contrat yoo xam ne nee nañu bokk na ci yu nguur gi signé te it Aliou da am na ci yoo xam ne dañ ko koy tudd en tant que rakku njiitu réew mi mhm. dañ ko ciy tudd ak yeneen te mu nekk lu ñor sénégalais ba gis nañ ci sax ci commentaire yi am na ci ñuy wax naan bu ñu fàtte benn yoon li nga xam ne ni aussi moom moo ñu ñor ci wàllum gaz beeg pétrole yi ba tax na ñuy ñu ñu euh, régler bu ñu paree dinañ ñëwaat ci yow ci mhm. wàllum information ci gaz beeg pétrole yi ak lañ la doon tudd ak mhm. yeneen yu ni mel ba tax na wax ji yaakaar naa ne Salma xëy na dëgër na comme ni ko nit ñi di waxee waaye bëggoon a ah, euh, comme ni ñu ko waxee bien faire rek bëggoon def rapporté waaw mi ngi noonu daal dina nag bëggoon a indi. Mhm. te wane aussi gëdd bi nga xam ne jox nañu ko euh, sunub liggéey loolu rek moo ñuy mhm. yóbbu. ci ci wax ji bu dëgëree nag ñu ciy jéggal waaye itam su baaxee na ñu xamee ne euh, ci sunu borom. yàlla la à chacun sa nekk ak ni ngay ni ngay defee mais l'essentiel na ko teg dans les règles de l'art damay dem sax damay rus. mais amul solo. <laughs> moom uh-huh. daal di di mais c'est c'est pour pour gën gën wax li ñuy mm. wax ñu xam ne amal nañ ko fulla mm-hmm. jox nañ ko gëdd tey liggéey bi ñu ngi ciy topp bu baax a baax mm-hmm. c'est ça noonu la c'est pour bien faire. waaw macha allah gis nañ loolu Coro ma xamoon de la sama journaliste bu mag bi. sant ak gërëm la <laughs> sama tooroor bu ñaawul. maa ngi nii macha allah sama yaay doom mi ngi noonu bébé Luna maa ngi koy ziaraale bu baax a baax. di la jaajëfal ci fàtte nañ sax tey la am 3 ans de mariage. ah ouais aussi ma maa ngi fàtte dañ maa tuddee doom démb te ki ma tuddee.